non Mansour sama xarit la waaw sama xarit la sama grand la merci beaucoup jërëjëf merci président maa ngi lay nuyu waaw di nuyu monsieur le ministre maa ngi lay nuyu bu baax di la jox sa di nuyu euh, le ministre des finances monsieur Moustapha Ba monsieur Samba Sy maa ngi lay nuyu di nuyu say collaborateur euh, monsieur le ministre euh, am naa ñu ma xam demee nuyu monsieur Coly maa ngi koy nuyu bu baax di gën di nuyu tamit euh, ñi toog fee ñoom euh, sama mbokk waa Fatick yi ñoom Biram Mbaru ak le directeur Daniel Sorano yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant jërë ngeen jëf waaw di nuyu sama collègue député yi monsieur le ministre <laughs> maa ngi lay gërëm di la sant di la remercier bu baax ci li nga defal président de la république ndax Macky Sall lu ko waaye defar rek jar na ko ndax c'est un bon président c'est un bâtisseur c'est un visionnaire kon lu ko waay defar rek jar na ko fees nag bii nga jël nag yóbbu ko Fatick waa Fatick gis nañ ko lu rëy la si ñun nag te dinañ ko jàpp incha allah dinañ ko feeteeg yow ma organiser ko ak yow jàppale la si ba mu nekk une grande réussite ndax ku defal Macky Sall teranga il faut ñu teranga boobu ñu ànd seeg yow te incha allah dina nekk réussite di la si remercier dina la si gërëm di la si sant bu baax a baax di remercier aussi euh, waaw yow la remercier di gërëm bu baax 12e euh, édition bi nga jël andi ko ci wa fatik dañ bëgg nak lolu gis na ci sa rapport la ngi ci jaglél gërëm na la ci sant na la ko ndax wax na la ko commission technique te gis na ko ci bir rapport bi kon alhamdulilah né nga di ko jël en compte te li ma si kii ma jox pour nga aménager ñuko pour fess nak bi mëna dox gis na ko ci rapport bi kon merci monsieur le ministre jërëjëf waaw ah, léegi euh, ñu dañ man dañ bëgg rek jigéen ñi def xoy yi euh, xoy jigéen ñi def xoy yi njaay njaay mooy suñu rituel yi am Fatick jigéen ñi bu xoy bi amee dañuy togg ci géej bi pour sarax yeeg yooyu dafay naaj bi day tàng si ñoom ñu bëggoon rek monsieur le ministre nga tabaxal leen fu benn hangar rek nga xam ne bu ñu ñëwee fa la ñuy togg def fa seen i yëf loolu daal lañ lay ñaan monsieur le ministre nga defal ñu ko ak euh, fi ñu koy defee ci stade ba stade bi dafa escalier yi baaxatul te vraiment ay autorités ñoo fay ñëw euh, assister ci xooy bi ñu bëgg stade boobu boo ñu ko mënee réfectionnel tuuti sax bëgg nañ ko monsieur le ministre di la di di la di la ñaan aussi ah ngeen baal ma àq de non non di ko remercier <laughs> waaw xam nga sama xol bi moo fees damaa kontaan ndax li mu defal président Macky Sall moo rëy ndax waaw ku jël ku defal makk Sall lu rëy ñu defal nga am lu rëy ndax Macky Sall nga jël nga nga nga tuddee ko euh, bulabar bi voilà boulevard Macky Sall bi moom lañ bëgg li nga wax gis naa ko ci rapport bi mooy cocotier yi ak ni nga koy aménager loolu yëpp gis naa ko si douzième édition bi daal bu soobee yàlla monsieur le ministre ñu ngi la ciy sant di la si gërëm te dinañ la si jàppale ndax en 97 Thiès dafa aaye te gis nañ ne neex na en 97 nga def ko en 99 nga def ko Dakar te gis nañ ne neex na 2001 2023 Ziguinchor aussi seetaan nañ seen bos neex na 2005 Tambacounda organisé ñoom yaay Awa Diagne gis nañ seetaan naa boobu tamit neex na